yaay que président wu France bi François Hollande da doon discours ba mu yàgg dégg tuy tuy surtout que ci monde boo xamante ni monde attentat la monde tuy tuy la surtout que ñoom ils ont tellement peur parce que génne wuñu seen loxo ci tànk yu dem ak c'est le 13 novembre bi daf leen jaatu ba ba léegi yàgg dégg tuy tuy effectivement looloo tax sax mu arrêté discours am bi da doon inauguré benn ligne TGV fële ca fële ca France moom président François li ci gën a doy waar benn gendarme moo am moo tiré par erreur. c'est un tir mooy dafa dafa par erreur et loolu la ñu wax mais teewul ñu ne ñu ne ñu ne ñu dañuy ubbi benn enquête enquête judiciaire boo xamante ni wala enquête administrative boo xamante ni pour rek xam lan moo waral loolu. ndax est-ce que mën nañu xool li xew exactement. effectivement mën bu fekkee image pare na mën nañu ko xool. Sur ces deux projets, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. non, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais c'est parce que quand même, entre le tir, à Bimi, Bimi réagit, il y a eu quand même 9 secondes où c'est un silence, mais même si qui m'a marqué. Non, de fait, titre en fait. Il n'y a pas eu le réflexe des gardes du corps mm -hmm. automatiquement. Non, voilà, exactement. Parce que si c'était le président de notre pays, avec, par exemple, si c'était. Euh, wala Obama voilà eh, eh, non mais eh, li écran bi daf ko ci wetam. mais même gars dañu war a ñëw déggee ci biti la. problème sécurité la mais ki ki li mu wax bon pour ñenn ñi parce que Donald Trump ci. Euh, ci moment campagne bi. Mhm. même chose la. mais daf kooku dafa dafa dafa waxoon ne dafay ñëw bon du woon tir mais dafa xawoon menacé Donald Trump mais ci saa si sécurité bi. candidat la woon mais sécurité dañoo ñëw encombré mais ci cas bi peut être nag ñoom seen sécurité yi bokkul sécurité française yi bokkul ak sécurité américaine. bien président daal bu taxawee nga dégg tuyu. après américain yi ñun ak ñu dañoo <laughs> si ay tubaab yi. <laughs> xam naa ñu ngi koy nga xam ne président il faut signer des papiers. Voilà. <laughs>